mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñu fas yéene rekk dellu siwaat ci liggéey bi nga xam ne akademiyatu daarul kayim li ifsi turaas al islaami wa nasri saqaafatihi ñu ngi koy amal di liggéey boo xam ne bu ama am solo la ca kër gi tàmbale ko boobaak léegi tey jii nag war a nekk bi nga xam ne moo war a tëj loolu nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne académie bi commencé woon na ko ci diiru euh, weeru koor gi di nuyu ci njëlbeen gi mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom lañu seqal jotaay bi euh, di ci jiital sëriñ maam Fallu Mbakke mu yóbbaale mbooleem ay doomam yi fi nekk ak i jarbaatam di tegtal di ci teg itam mbooleem mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci jotaay bi ak ñi nga xam ne tamit ñoo ñuy topp ak fu ñu mën toppee rek ci média yi euh, boobaak léegi tey nag comme ni ma ko waxe woon di bi war a mujj ci waxtaan yi ñu amal ci koor gi fii ci daarul karim ca mu muassasa bi yi nga xam ne mooy académie bi di ko taxaw booba ak léegi te mu am solo lool ñu war ko tëj tey ci beneen waxtaan woo xam ne wu am am solo la euh, danañ ci ñëw waaye balaa loolu tamit ñuy nuyu sëriñ seex mbàkke Modou Faat Xari mi nga xam ne moo toog jotaayu sëriñ Modou Faat Xari mbàkke di ko nuy bu baax te di ko siyaar di ñaan suñu boroom mu dolli ko ak wér ak kàttan wala mu yéene liggéeyal sëriñ Modou Faat Xari yéene ko liggéeyal maamam sëriñ Masamba mbakke suñu boroom euh, àggaleel ko ko ci kàttanam kon am nañu fi ab thème tey bu ñu war a traité te suñu mbokk mii dañ ñëw ci moom war ñu ko defal muy lu am am solo waaye ba ñu ñëw thème boobu nga xam ne mooy al infaq al infaq wa asaruhu fil mujtama maanaam li ñu tuddee def dépense ci yoonu yàlla euh, maanaam njeexital yi nga xam ne moom lay am ci société bi ku ne xam na ne infaq muy dépense ci yoonu yàlla ci biir société bi am na ay effets yu muy def loole sëriñ Mbàkke dana ci ñëwal du ci sori naa ñëw ci euh, tomb yi nga xam ne tënk na ko ngir bëgg waxtaanee danañ ci ñëw waaye bala ñoo ñëw ci loolee ñu xamle as lëf rek ci jëmm ji nga xam ne moonu nu war a defal waxtaan wi tey ñu di ko wooye sëriñ Mbacke Diop Xudar mën nañ ko wooye sax xuwaay di xuwaay dimul xadim comme ni mu koy waxee mooy liggéeykatus sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu Serigne Mbacke Diop mi ngi dëkk fii ci Touba Touba la la juddoo buñ bëggoon ñëw ci am njàngam alquranul karim mën nañu wax ne mi ngi jàngee ci daaray Longor maanaam fi longoor Mbay foofe la jànge ci nit ñoo xam ne xam nañ xam nañ leen lool ci wàllu jàngale alquraanu karim ak wattu ko ak li nga xam moom mooy liggéey ji xam nañ leen ci bu baax a baax foofa la jógee euh, mu nekk koo xam ne tamit bi mu jàngee alquraan ba noppi yamu ca waaye mu dolli ci li nga xam ne doomi soxna su jàngee alquraan ba noppi loole la ca war a teg muy xam-xam ndax euh, alquran yi kese jàpp naa ne nekkut loo xam ne ci nit ki moo koy matal waaye xam-xam moo koy mottali xam-xam boobu nag mu def ci ay jéego yu rëy rëy yoo xam ne képp ku liir jàng topp ay jaar-jaaram danga xam ne sonn na ci lool te tamit jàmbaar la ci lool ndax euh, téere yi mu nga xam ne mi ngi koy taalif bari na lool ci li nga xam ne moom mooy lu aju ci wàllu ndonol sëriñ bi kon moom bokk na ci jàmbaar yi nga xam ne euh, ñu ngi taxaw ngir mën a liggéeyal sëriñ bi ci am mbindam liggéeyal sëriñ bi ci ay xasiidaam liggéeyal sëriñ bi ci ay li nga xam mooy téere xam-xamam ca loole amut dara lu ko jiitu ci nit ki liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal sëriñ Tuubaa sëriñ bi waxoon ne ne sunu borom yàlla nag ma fajal aajo yi ñi nga xam ne dañuy sax di ma liggéeyal waqdi xawaaija alladina daamu fi xidmati wa hablahum maraamu na nga leen may la nga xam ne moom lañuy ñuy sakku te itam na leen defal ay kër ca digg aljana wax na ko ci yeneen bayit loolu la mu ci wax bëri na waaye buñ mënee wax tuuti rek ci Euh, fi nga xam ne jaar na fa ci wàllu jàngale ak yu mel noonu ci wàllu xam-xam sëñ Mbàkke euh, xam nga ne mi ngi jàngale léegi ci euh, mahad bu ñuy wax mahadul xalil al islami fil marhala al ibtidaiya loolu diirub 2012 ba tey mu ngi fiy jàngal mi ngi doon jàngale tamit ci marhala bi ñu tuddee al ihdadiya wa sanwiya mooy njàng mu suufe mi ak mu diggu dóom mi ak mu kawe mi yépp moom mu ngi ci doon yëngatu di ci jàng di ci école bi di ko jàngale kon yaakaar naa ne loolu yitte la tey tamit ku tàmbalee ci njàngale mu suufe mi teg ci ay saa yu néew dem ci njàngale mi ci diggu dóomu dangaa dangaa ay saa yu néew dem ci njàngale mi nga xam ne mooy mu kawe mi jàpp naa ne am nañ ci yow yaakaar na yaa ngi dox ay jéego ya nga war a dox li ban kay mooy jóge ci kaw dem ci suuf waaye jóge ci suuf dem ci kaw ak na ak na ca war a demee yaakaar naa kuñ ko gis ci moom war a am ci moom yaakaar ne ëllëg euh, fu nit di àgg ci xam-xam dana fa àgg euh, suñ Mbàkke Jóob itam bokk na ci ñi nga xam ne ñooy taxawu euh, daayira mi ñu tuddee Rawdu Rayaahiin ca sëriñ bi dénk leen lu jëm ci wàllu xam-xamu dëkk bi nga xam ne maa ci wàllu màggal geek li nu nuru di liggéey bu mag a mag boo xam ne ña ca nekk ñépp ay doomi doomi daara lañ te ay kilifa yoo xam ne fañ war a jaar yépp jaar nañ fa mu nekk fa di ca amal liggéey bu am am solo euh, sëñ bi xam naa ne euh, fi jaar nii yépp daal ci ay jaar-jaaru xam-xamam ak ay dipolom yi mu am xam naa ne loolu bu ñu doon kii dana yóbbu suñu temps yaakaar naa ko moo tax xam naa ne dañuy tënk rek ci loolu euh, yemani ci su ko defee rek sëñ Mbàkke dañ daal di mën a ñëw rek ci tomb yi nga xam ne war na ko waxtaanee ca muy euh, mu aju ci al infaq wa asoro fil mujtama tomb yi ci gën a am solo si mbàkk war ñu ko traité waxtaanee mooy mafhumul infaq bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina mawlana muhammadin al amin wa ala ali beytihi alkiram altayibin altahirin zawi ridwani wattamkin wa man iqtafa ala atharihim ila yawmi ddin wa radiya allahu an habibina wa xurbatina cheikh ahmad alxadim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak i ngi leen di nuyu nuyoo bi lislaam di assalaamu aleykum nuyoo bi ñu ci jiital saaxibul fadila wal wasila muntaxa al basir al xalifa al am li taifa al muridiya di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala mu may ko fan gudd ànd ak wér yaram ba naal yi nga xam ne moom la naal ci lislaam ak yoonu murit béygale yépp dañu ànd ko moom di ziyaare bu baax borom pàkk bu laab bii nga xam ne fi lañ nekk di pàkk ci pàkk sëriñ Masamba muy sëriñ Seex mu sëriñ Moodu Faati Xari ak mbooleem kilifa yi nga xam ne fekk nañ leen ci jataay bi di ko tàmbalee ci sëriñ Fàllu ak sëriñ Xaadim Mbàkke di nuyu tamit suñu mbokku gëstukat sëriñ Seexuna mu sëriñ Moodu Habib ak sëriñ Abdul Ahad Si mi nga xam ne moo doon tijji jataay di sant bu baax mbokk yi nga xam ne ànd nañ ak ñun muy sëriñ Massamba Gueye muy gis suñu wet ak sëriñ Cheikh Diop xam naa thème bi nga xam ne moom lañ tànnoon ñu war ko waxtaanee dafa doon thème bu am solo boo xam ne ñëw na ci jamono ji nga xam ne moom lañ ko soxlaa muy al infaq wa atharuhu fil mujtama muy finaase ak jeexit yi nga xam ne moom lay bàyyi ci société bi nga xam ne ci la ñu dund rawante naag def gi ñu ko def ci weeru màgg wii nga xam ne ci lañ nekk di weeru koor di sangu mboole mbir yépp waaye tànn gi ñu tànnaat guddi yu mujj yi nga xam ne mooy fukki fan yi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne na ngeen ci gëstu ak nattale guddig laylatul xadr guddig laylatul xadr ku ne xam ne ne ci fukki fan yu mujj yi ci la nekk kon doon bis yoo xam ne yonte bi alayhi salaam doon na ko dundal doon ci gën a sonn ci ak jaamu yàllaam doon ci gën a farlu loolu nag war naa tax ñu nit ñu koy dundal comme ni nga xam noonu la ko yonte bi alayhi salaatu salaam doon dundalee su ko defee nag ñu xam ne jëmmi infaaq muy jël sa alal di ko financé ci yoonu yàlla dafa bari ay anam yoo xamante ni mën na ca amee te loolu dana ñëw ci biir waxtaan wi waaye mu bokk ci yi nga xam ne aji woor ji daa war a sàmmoonte ak moom ngir nekk gi xam ne moom la nekk ci jëf yu baax yi nga xam ne dañuy bëgg nit ki su wooree mu koy bari lu mel ne jàng alxuraanul karim lu mel ne dundal guddi yi ci ay nawaafil waaye lu mel ne jël sa alal di ko saraxe ak di ko joxe ci yoonu yàlla waaye nag bu ñu xoolee li nga xam ne moo di ak nay wala ñàkk ragal ak ñàkk dafa bokk ci bunt yi nga xam ne mooy bunt yi seytaane di jaare nit ngir gàllankoor ko ba du jël alalam di ko dugal ci yoon yi nga xam ne mooy yoon yu baax loolu mooy tax nit di jël alalam di ko denc wala nit di jël alalam bañ koo dugal ci yoon yi nga xam ne mooy yoon yi koy jariñ te seytaane ku ne xam ne day tere doomu aadama day tere doomu aadama muy jël alalam di ko financé yoonu day tere doomu aadama muy jël alalam di ko saraxe day tere doomu aadama muy jël alalam di ci dimbale moroomu doomu aadama xam nañ ne tamit alal mooy dëggi-dëggi lii tax nit mën a dund ak dundam balaa mën a jag dëgg-dëgg alal mooy li koy jagal waaye tamit dafa doon ci mbir yi nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala daf koy tudd lu bëree bari ba jàppee ko sax léeg-léeg muy fitna fitna la moom alal innama amwalukum wa awlaadukum fitna seen alal yi ak seen doom yi fitna la naka lay nekkee fitna mooy su fekkee ne suñu borom jox na la ko nga sàggane ko dugal ko ci anam yoo xamante nii du anam yu baax su boobaa fitna lay doon ci yow même nit tamit dafa doon koo xam ne dafa bëgg alal mbëggeel gu tar lool loo tax suñu borom wax ne almaalu wal banuun ziinatul xayaati dunya alal ak doom ñooy taaru àdduna waaye suñ borom it bëgg gi xam ne moom la nit bëgg alal ak mooñaale gi mu ko moñaale ak loolu tax na mu wax ne watu xibbuunal maala xubban jamman doomu aadama daa bëgg alal mbëggeel gu tar lu mu ci am lu mu bari bari lu tax mu doy waxtu bu ne mi ngi bëgg mu yokk wane Seydina Aliyu karamallahu wajhahu daan wax ne man hu maani laa yasbaan taalibul ilmi wa taalibu maal ñaara ngi nii ñoo xam ne du suur mukk kii sàkku xam-xam lu xam-xamam bari bari lu tax mu ne doyal naa xam-xam waxtu ne xam-xamam day bëgg muy gën di yokk waaye kii sàkku alal it lu alalam bari bari bari lu tax mu doyal mukk waxtu ne day bëgg alalam di gën di yokk loolu nag moo tax ñi ngi sant bu baax baax waa academia daarul karim bi nga xam ne ñooy taxawu jataay yu am solo yii di ci dundal weeru koor ak di ci fàttalente ak di ci jàngat tomb yoo xamante ni tomb yu yitteel jamono la comme ni nga xam noonu la ko sëriñ Abdou xar waxee thème bi ci tomb yi lañ ko bëgg a waxtaane tomb bi ci jiitu nañ leeral suñ waxee infaaq muy jël sa alal di ko financé ci yoonu yàlla luñ ci jublu dëgg-dëgg danañ leeral it xeeti infaaq yi am muy xeeti anam yi nga xam ne nit mën na koo def mu jàppee ko infaaq danañ leeral it ngëneel yi nga xam ne moo ci nekk ak lenn ci ay jeexintalam danañ leeral it bu ñu waxee infaaq ana ban infaaq mooy bi nga xam ne moom la lislaam tàgg ana ban infaaq mooy bi nga xam ne moom la lislaam gërëm moom la lislaam bëgg su ko defee danañ leeral ci mujjantal bi dawrul muridina fil infaaq muy rôle bi nga xam ne murid yi war nañ koo def ci jël seen alal financé ko ci yoonu yàlla joxe ci exemple ci mag ñi àndoon ak sëriñ bi ak sëriñ bi ci boppam kon ñi ngi ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala defal ñu ci tawfiq ba ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee ñu amee ci lu kawe suñu jor su ko defee baatub al infaq baatub arab la mi ngi bàyyi ko ci anfaqa anfaqa yunfiqu infaqan infaq mooy masdar bi buñ demee ci lu mel ni al mu'jamul wasit dañuy gis ne moom bi muy firi infaq day wax ne bazlul maali wa nahwihi fi wajhin min wujuhil xayri mooy nga jël sa alal wala lu mel ni alal nga yóbbu ko ci anam goo xam ne anam yi yu baax yi lay lay doon muy bazlul maal wi nahwihi fi wajhin min wujuhil xayri wujuhul xayri nag bari na mooy tabax ci ay daara tabax ci ay école tabax ci ay euh, jàkka ak yeneen yu mel noonu yooyu yépp day dugg ci yi nga xam ne moom la ñu tuddee wujuhul xayri moo tax bu demee ci kitaabu taarifaat bu jorjaan yi moom day wax ne infaq mooy sarful maali ilal xaaja mooy nga jël sa alal jëmee ko ci loo xam ne lu am lu am aaja la mooy loo xam te ni lu farata la loo xam ne lu soxlaa la lu yitteel la kon da nga cay déggee soo jëlee sa alal dugal ko foo xamante ni doonul lu farataal wala lu yitteel ko infaq la waaye du infaq bi baax infaq bi baax dëgg-dëgg mooy nga jël alal dugal ko ci foo xam ne fu ñu ko soxlaa la fu ñu ko aaja woo la kon loolu mat nay bàyyi xel ko defee nag man naa bari lool mën naa am ay xeet yu wuute lool ndax ci biir lislaam am na ay xeeti joxe yoo xam ne dafa bari ci lislaam yu ñuy tuddee xeeti joxe xeeti joxe yooyu yu ci bari mën naa dugg ci biir infaq lu ci mel ne sadaqa sadaqa day dugg ci biir infaq sadaqa mooy jël sa alal saraxe ko nga xam ne yow da koy def loolu rek jublu ci sàkku tuyaaba ci suñ boroom waaye même hadiya bi nga xam ne da koy jox sab sëriñ wala da nga koy jox keneen ku du sab sëriñ kooku mën naa dugg ci biir infaq ndax da nga koy joxe hadiya du caag ne xëy na sax sëriñ rek lañ ko jox ndax hadiya moom boo jëloon alal jox ko koo xamante nii xëy na daa am loo gis ci moom ba tax nga jox ko ko loolu baax na way laa tamit mën naa bañ a doon alal nga jox ko leneen loo xamante nii du alal waaye hadiya lees koy jàppee même li ñu tuddee hiba hiba mooy ak may ak may day dugg ci biir infaq mooy jël sa may ko ku soob al waqf waqf mooy nga jël sa alal def ko ci loo xam ne bis boo fi jógee woon kenn du ko doon comme Serigne Mourtada radiyallahu anhu noonu mu defoon ci lenn ci jumtukaay yi nga xam ne daan na ko yor ngir dimbale ci néew di doole yi daf koo defoon waqf lillah nga xam ne bu fi jógee kenn du ko kenn ko doon ak yeneen yu dul yooyu su dee nag jëmmi infaaq am na njariñ waaye am na ay jeexintal yu baree bari jullit bi lim war a xam mooy alal ji nga xam ne moom la jiital ci jëf yu baax mooy alal ji ko jariñ ëllëg yamal xiyaam waaye alal jim jël denc ko ci ay banque wala alal jim jël denc ko ci ay barab yu sori lool yoo xam ne bala caa àgg léeg-léeg dana jafe loolu doonul alal ji koy jariñ dëgg-dëgg ndax day mel ne fa mu nekk rek fa la ne kenn mun cee jariñoo waaye alal ji nga xam ne nag da nga koo jiital ci sa bàmmeel mooy alal ji nga xam ne moo lay jariñ loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ayukum maalu waarithihi ahabu ilayhi min maalihi kenn ci yéen ndax amul kenn ci yéen koo xam ne alal ji muy donn moom la gën a bëgg ci alali boppam ñu ne ko ma minna ahadun illa wa maaluhu ahabu ilayhi amul ku dul kenn ci ñun lu dul ne alali boppam mooy alal ji nga xam ne moo ko moo ko gënal yonent bi daal di wax ne fa inna maalahu maa qaddama wa maala waarisihi maa xara nee na nit alalam dëgg dëgg dëgg dëgg mooy alal ji nga xam ne daf koo jiital ci bàmmeelam waaye alal ji nga xam ne alal ju ñuy donn la mooy alal jim bàyyi ginnaaw jim bàyyi ginnaaw nga xam ne dañ koy donn séddale ko ak njabootam jël ko kon loolu day mel ne doonut alalam dëgg daf ko fee bàyyi waaye alalam dëgg-dëgg mooy alal ji nga xam ne jiitaloon na ko jiitaloon na ko bi muy dund xadis boobu alimaam yi génne na ko moo tax boo demee ci borom xamam yi sara xaddis dañuy wax ne xaddis bi day mel ne day ñaaxe ci nit ki di jël alalam di ko jiital ci jëf yu baax jëf yu baax ci anam yoo xamante ni dana ci mën a jariñoo ëllëg yowmal xiyaam te anam yooyu danañ ko tudd buñ demee ba ci biir waxtaan wi waaye tamit nit ki war naa xam ne alal ndénkaane la joo xam ne yàlla daf koo dénk jaam bi te ëllëg yawmal xiyaam da la koy laaj dénkaane borom bu la dénkee saa su ko soxlaa da koy jël yàlla lim dénk jaam bi saa su ko soxlaa mën na koo jël waaye yàlla tamit lim dénk jàmbi bi ci alal it bu ëllëgee yawmal xiyaam dana ko laaj moo xam muy lu bari moo xam muy lu ndaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ci xadis ne laa tazulu qadama abdin yowma alqiyaama xata yusala an umrii fi ma afnaahu wa an ilmihi fi ma faala wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa wa an jismihi fi ma ablaahu yonent bi alayhi salaam nee na nit ki ëllëg yowmal xiyaam du jéggi ñaari jéego lu dul suñ borom dana ko laaj ak dundam ana ci lan la ko sànkoon ndax ci lu baax la ko sànkoon ci jaamu yàlla wala ndax da ko sànkoon ci mooy yàlla borom bi subhanahu wa taala wala iyaazu billah xam-xam bi la sa borom defalaloon bi nga nekk ci àdduna dana la laaj xam-xam boobu lan nga ci doon def ndax jëfe woon nga ko wala jëfe woo ko waaye noonu tamit la lay laajee alal ji nga xam ne moom la la joxoon ana fan nga ko fàggoo ak ana fan nga ko dugal kon alal ñaari laaj lay am fan nga jëlee ak fan nga dugal fi nga jëlee mooy ndax dangaa jëlee fu baax dugal fu bon wala ndax da ngaa jëlee fu bon dugal fu baax wala ndax da ngaa jëlee fu baax dugal fu baax xeet yi anam yooyu mën naa mën naa wute lool mën naa wute lool kon loolu mat nay mat nay bàyyi xel waaye même sa yaramit sa borom dana la laaj ci lan nga ko ci lan nga ko ràppal ci lan nga ko ràppal hadis boobu alimam Tirmisi génnee na ko loolu nag moo tax lislaam di ñu soññ ci ñuy jël suñu alal di ko financé ci yoonu yàlla lislaam di ñu soññ ci ñuy jël suñ alal di ko saraxe ci ak tab waaye nag ak teeyug bàkkan moo xam muy lu bari wala muy lu ndaw yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ci benn xadis ne ittaqu naara wala bi shaqi tamrit tamratin nee na na ngeen ragal sawara donte sax da ngay jël aw dogeetu tàndarma sarax ko nit jubli ci mu fegal la ëllëg yamal xiyaam ma dogeetu tàndarma lu ndaw la lu néew la boo ko gisee da ngay jàpp ne xëy na mënoo cee amee tiyaaba mënoo ci amee aw yiw waaye boo ko saraxee te yàlla rekk tax mën na laa fegal sa a ëllëg yowmal xiyaam waaye amul sikki sàkka ci ne saxaaba yi nga xam ne àndoon ak yonte bi alayhi salaatu salaam doonoon nañ ay exemple ci jël seen alal di ko financé ci yoonu yàlla loolu moo tax sëriñ bi bi mu leen di tàgg noonu la leen tàggee fa atlafu l amwaala bil infaaqi bi raariaa innaasi wal nifaaq nee na ñoom saxaaba yoo ridwanullahi alayhim ajmain dañoo sànkoon seen alal ci di ko dundale ci yoonu yàlla waaye nag bañ koy def dañ ko doon def ngir jëmmi yàlla tax defuñu ko ngir ngistal waaye defuñu ko ngir nifaaq muy ak naarfiq kon dañ ko doon def ngir jëmmi yàlla borom bi subhanahu wa waaye tamit ngir dëgërloo seen borom bi nga xam ne mooy aji jariñ di aji wërsëgale waaye dëgërloo yàlla borom bi subhanahu wa taala ci wërsëg xam ne nit lu am yàlla moo ko jox moo tax seen alal jooju dugal gi ñu ko doon dugal ci bunt yiw yi doon toon loo xam ne lu diisoon ci ñoom la xam nañ ne yàlla moo gàddul nit ku ne lim war a am jaam bi day day fàggu waaye bu dee am am dëgg-dëgg rek suñ borom mooy ki xam ne moo ko moo ko gàddu euh, loola waral ku ci mel ni ibnu abbas radiallahu anhuma wax ne yonte bi alayhi salaatu salaam nee na amul kenn ci saxaaba yi koo xam ne ni ma alalu Seydina Abu Bakar jariñee alalam jariñee na ma noonu ndax Seydina Abu Bakar ku ne xam ne ne dafa jàppale yonte bi alayhi salaatu salaam ci boppam waaye daf ko jàppale ci alalam ca jamono ji nga xam ne lislaam mi ngi doog a sosu metti woon lool coono yu baree bari ñu koy daj mu taxaw jàppale yonte bi salaam ba lislaam taxaw moo tax mu ne alali Seydina bakkar ni mu ko jariñee amul alali kenn ci saxaaba yi koo xam ne alalam jariñee na ko ni ko alalu Seydina Aboubacar jariñee loolu tamit mooy li nga xam ne moom la gis ci yeneen saxaaba yi ba tey ndax saxaaba yi ñu ci bari doon nañ jël seen alal di ko financé ci yoonu yàlla waaye naa Seydina bakkar moomu def cee ràññi ko woon Seydina Omar it doon ko ci ràññi ko woon même Seydina Ousmane radiallahu anhuma doonan na ko ci ràññiku seydna omar nee na am na benn bis yonte bi salaam daf ñoo digal ku ne ci saxaaba yi génnee alal jim yor saraxe ko ci yoonu yàlla nee yàlla dogal mu dëppoo ak alal joo xamante ni daa nekkoon ci moom nee na ci la ne tey jii daal abu bakar du jiitu tey du ma jiitu tey seydna abu bakar du ma jiitu ndax gis na ne bépp course bu ñu def ci aw yiw seydna abu bakar mooy jiitu Omar daal di jël alalam xaaj ko ñaari xaaj jël benn xaaj ba indil ko yonti bi alayhi salaatu salaam ba ca des mu bàyyi ko këram bi mu ñëwee yonti bi alayhi salaatu salaam ne ko maa abqayta li ahlika lan nga desalal sa waa kër xultu misluhu mu ne ko dama indi xaaj bàyyi leen xaaj waaye Seydina Abubakar moom ba mu ñëwee dafa indi alalam jépp jox ko yonti bi alayhi salaatu salaam yonent bi ne ko maa ab xayta li ahlik lan nga desal sa waa kër mu ne ab xaytu lahum allaha wa rasula mu ne ko man de bàyyee naa leen ak yàlla akub yónnenteem nee na Seydina Omar ca bis boobu la wax ne dootuma rawante ak Seydina Aboubacar ci benn ci benn ci jëfi yiw yi ndax fu ñu rawantee ci yiw rek mu daal di koy mu daal di koy raw xadis boobu Tirmisi yi génne na ko euh, su dee ku mel ne Seydina Ousmane moom it noonu la meloon noonu la meloon nga xam ne day mel ni moom la sëriñ bi junj ci raaya baata nabiyu ila fajrin yarumu lahu ridan min allahi fa tafdilu kubbaaru yonte bi alayhi salaatu salaam fanaane na guddi ba fajar jot di ko ñaanal ak di ko sàkkul ngërëm ci yàlla borom bi subhanahu wa taala nga xam ne borom yi ngëneel yu mag a mag la ndax li ko may loolu dëgg-dëgg mooy li ñuy tuddee jaysul usra wala xaswatul onsra boobu nga xam ne moo amoon muy xaswatu tabuk doonoon xaswa bu metti lool saxaaba yi fi mu dikkee ci ñoom doon lu jafe yonte bi alayhi salaatu salaam bi loolu amee seyduna osmaan moom dal di cay taxaw taxawaay bu rafet lool ci alal joo xamante nii indiloon na ko yonte bi alayhi salaatu salaam ak teen boo xamante ni jëndoon na ko ci jëf ju yiw jooju mu defoon ci la yonte bi alayhi salaatu salaam waxee waxee woon na Usmaan suñ borom mbaa yàlla na ko toppatu ko dara lépp lu mu defati ginnaaw lii du ko lor day loolu la sëriñ bi jubloo junju ci wax jooju muy baata nabiyu ila fajrin yarumu lahu ridan minallaahi fa tafdilu ko baaru ngir moom it taxawaay bu rafet boo xamante ni am na ko ci digganteem ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, bu ko defee tamit am na ay yu baree bëri yoo xam ne day rot ci alquranul karim di wane ngëneelu jël sa alal finance ko ci yoonu yàlla ay yu baree bari yoo xam ne mënees koo lim bokk na ca njariñ yaa xam ne al infaq am na ko mooy day yokk alal day yokk alal waaye day barkeel alal day yokk alal day barkeel alal te nit ki alal jëm yor waxtu wu ne dina bëgg muy gën di yokk waxtu wu ne dina bëgg muy gën di bari bunt bi gën a gaaw nag ci yokk alal di ko bari di ko barkeel mooy su la yàlla joxe alal nga koy financé ci yoonu yàlla ndax suñ borom wax na ci alquranul karim wa ma anfaqtum min shay'in foofu huwa yuxlifu lu ngeen financé yàlla mooy ki xam ne moom moo koy moom moo koy andil lu ko wuutu te ni mu waxee euh, day mel ne boo génnee rek financé rek te yàlla tax ca sansa rek suñ borom subhanahu wa taala da lay wuutalal lu gën la nga joxe te loolu ku yàgg joxe ko ne lu mel noonu mën na laa gaar lu mel noonu mën na laa gaar joxekat yu bëree bëri lu mel noonu dañ leen faral di gaar léeg-léeg day yor loo xamante ni loolu rek lay yor nit ñëw sàkk ko ci moom mu jox ko ko xaar yàlla waaye balaa jant so yàlla mën na ko andil ko andilaat lu ëpp loolu baa lu toll ne lam joxe woon ndax suñu borom moo ko wax yàlla lu mu wax lu ne rek na mu ko waxee noonu lay noonu lay amee kon moo tax mu doon lu am solo lu mat a bàyyi xel xam ne kon bokk na ci njariñ li mooy loo joxe te yàlla tax suñ borom subhanahu wa dana la andil lu ko lu ko wutu waaye tamit ci joxe la alal di gën a fuloo alal ci joxe lay gën a fuloo ci lay gën a bari nit ku la ëpp lu muy joxe rek alalam di gën di bari suñ borom wax na ci alquranul karim wa ma tunfixu xayrin fa li anfusikum wa ma tunfiquuna illa ibtigaa wajhi llahi wa ma tunfiqu min xayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun nee na lépp loo xamante ni yéen ngi koy financé ci aw yiw ci aw yiw ci lu baax nee na yéen la ñeel yow rek lay jariñ waaye lépp loo xamante ni yéen a ngi koy financé te jamono ja ngeen koy def yéen ngi ci sàkk ngërëmal yàlla borom bi subhanahu wa taala wala la ngeen financé ci aw yiw yàlla borom bi subhaanahu wa yu wax fa ilaykum dana leen fay loo xam ne dana matale kóllëre ba fay leen lu ëpp la ngeen joxe woon te moom yàlla borom bi subhaanahu wa lépp loo xamante ni digg na ko ab jaam jaam bi dana ko gis looloo waral sëriñ bi bu demee ci biir masaalikul jinaan ñuy gis ci wàllum joxe mu ciy soññ ak di ci ñaaxe lu bëree bëri soo demee ci bunt bi nga xam ne mooy baabu sadaqa wal infaq wa sillati xam ne bunt la moom da ko jagleel saraxe ak dundale ci yoonu yàlla ak jokk ak mbokk ci la yoo naan amma tasadduqu maal infaaqi fa jamaal xayraati bi ittifaaqi nee na saraxe ak jël sa alal di ko dundale ci yoonu yàlla nee na mboolem yiw yépp boole na ko mboolem yiw yépp dajal na ko daanaka kulli ma yakunu nafaal muslimin wa silati rahimi aydan kulla ak lépp loo xamante ni rek mën naa jariñ mbindeef yi lu mel ne jokk ak mbokk waxtu wu ne mu ne fadaayilul infaaqi wa tasadduqi kathiratun jiddan ala al muttafaqi mu ne ngëneel li nga xam ne moo nekk ci saraxe ak li nga xam ne moo nekk ci jël sa di ko dundale ci yoonu yàlla mu ne dafa bëri lool kathiratun jiddan ala al muttafaqi ci la nga xam ne mbooleem borom xam mi dëppoo nañ kon day mel ne bayit yooyu sëriñ bi daf ñuy leeral ne saraxe ak jël sa alal di ko dugal ci yoon yu baax yi ak li ñuy tuddee jokko ak mbokk bokk na ci bunt yiw yi nga xam ne mën naa jariñ doomu aadama ci àdduna waaye mën naa jariñ nit ëllëg yamul xiyaam waaye bokk na ci yi nga xam ne day ñod di wërsëg day ñod di wërsëg ndax dafa am yi ñuy tuddee ay as ay asbaab aljaaliba li ay mbir yoo xam ne nit bu koy def wërsëgam day yokk wërsëgam day yokk di ko ñoddil wërsëg parce que léeg-léeg dana jafe nit lool waaye lii tax muy jafe nit léeg-léeg muy ñàkk a sàmmonteeg yi lislaam jàngale waaye léeg-léeg it mën naa yomb nit lool bu sàmmonteeg li lislaam jàngale mu jël alalam di ko joxe ci yoonu yàlla sayyidina abu hurayra radiallahu anhu wax na ne yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ne maa min yawmin yusbihu al ibaadu fiihi illa malakaani yanzilaan nee na amul lu du ne bis boo xamante nii saa su bit bët setee ñaari malaaka danañ wàcc ñaari malaaka dañ wàcc suuf suñ wàccee fa yaqulu ahaduhuma allahuma aati munfiqan xalafan wa yaqulu l aaxaru allahuma aati mumsikan talafa kenn ki day wax ne yow suñ borom maa ngi lay ñaan kii nga xam ne day jël alalam di ko financé ci yoonu yàlla na nga ko jox lu wuutu la muy joxe keneen ki di wax ne yow suñ borom maa ngi lay ñaan kii nga xam ne day jël alalam di ko téye ngir ak nay na nga ko téye na nga téewar sa gëm na nga téewar sa gëm wala na nga yàq alal ji ba du ko jariñoo baraane nit ko am alal alal ji jekki-jekki rek yàqu walal ji alal ja jekki-jekki dugg ca lu waral loolu mooy bunt yi nga xam ne mooy bunt yi yiw yi nga xam ne moom la ci waroon def nangu ko cee def suñu borom it moo la ko jox comme que moo la ko jox saa su ko soxlaa mën na koo jël ci anam gi nga xam ne noonu la ko noonu la ko soxlaa kon lu mel noonu dina mata bàyyi xel léeg-léeg ci nit ki am alal muy xam ne su fekkee ne joxe na ko fa mu ko war a joxe rek yokkute lay jur waaye su fekkee ne daf koo téye li mu koy jural mooy ak ñàkk waaye li mu koy jural mooy fitna li mu koy jural mooy tiis ëllëg yamal xiyaam moo tax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon euh, saxaaba bi ñuy tuddee bilaal ne ko anfiq yaa bilaal na nga jël sa alal di ko dundale ci yoonu yàlla te bu ragal ak ñàkk te bu ragal ak ñàkk léegi léeg nit lii tax du joxe alalam mooy ragal ak ñàkk jàpp ne su joxee moom day jeexal walla su joxee dootul amaat la muy joxe loolu léeg-léeg dana jur nit jël alal téye ko bañ koo joxe waaye su fekkee ne mi ngi koy joxe te ragal ak ñàkk bañ a ragal ak ñàkk kooku yàlla borom bi subhanahu toujours da koy indil lu wóotu la muy joxe euh, waaye bokk na ci njariñ yi nga xam ne alal dana ko jur mooy dana ñoddi wërsëg ak barke ci alal comme ni ñu waxoon sànq waaye dana waral tamit nit ki am am koom loolu yonent bi alayhi salaatu salaam waane ci xadis boo am te ni xadisul qudsi la muy buñ jëlee ci suñ borom yàlla borom subhanahu wa taala wax ne anfiq na aadama yunfaq alayka yow doomu aadama na ngay jël sa alal di ko joxe bis boo ko defee rek yunfaq alayka def na jël alal financé ko ci yow loolu lañ cey déggee mooy soo dee joxe te yàlla tax yàlla di la jox soo dee joxe yàlla tax yàlla di la jox loolu moo tax sëriñ bi di wax ci masaalikul jinaan wa kullu man waafaaka lil ibtidaai fasbub alayhi mataral ataai képp koo xamante ni ñëw na ci yow di sàkku ndimbal nee na na nga sotti ci moom tawub tawub joxe mooy na nga ko jox lu bëree bëree bëri in kunta daa ginan wala taxtakir maalan ila gadin li xawfi darar nee na su fekkee ne da ngaa doon ku woomal nee na bul jël alal di ko denc def li ñu tuddee ixtikaar ixtikaar mooy denc saalal bañ ko joxe wala ngay jël sa alal di ko denc naan naaxaar ba suba wala naaxaar ba ëllëg ngir ragal ak loru wala yu ni mel lu tax mooy li annahu subhanahu wa taala huwa alladi aataaka daaka al maala ndaxte yàlla borom bi subhanahu wa ngay jël di ko denc yàlla moo la ko jox fa haythuma aktharta fihi talafa li wajhihi aataaka jàllal xalafa nee na saa soo bërilee di jël sa alal di ko joxe rek te yàlla tax yàlla borom bi subhanahu wa di la jox ngir jëmmam la jox ngir jëmmal kon loolu mat nay bàyyi xel waaye bokk na ci li alal di jur mooy day jur ab yool bu rëy ci njariñ yi nga xam ne joxe alal dana ko jur mooy yool bu rëy a rëy waaye tamit mucc ci njàqare ëllëg yowmal xiyaam ndax suñu boromaan ci alquranul karim alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah thumma la yutbicuuna ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxsanuun nee na gaa yi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko finance ci yoonu yàlla waaye loolee ñuy financé man amu ca man mooy jox nit ba pare di ko di ko di ko puukarewoo woo masalan diw sàngam ceetam gi bu dutoon ak man xar xar mam ray du ko am wala ngenteem li bu dutoon ak man xar mam ray du ko am wala xeet yu mel noonu xam ne boo ko defee rek yaa ngi yàq la nga defoon ci lu baax ndax kat laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha kalladi yunfiqun maalahu riyaa annaas mel ki am day jël alalam di ko joxe waaye da ciy jublu rek ngissal da ciy jublu ngissal moo tax alal bu ci mën na amee rek yàq dal di dal di cay am waaye su ca mën na amee rek ak ñàkk am tiyaaba daldi di cay am ñàkk amug yool dal di cay am moo tax suñu borom wax ne ñooñu ñel na leen ak fay fa suñu borom waaye doonuñu ñoo xam ne dañuy jàq ci àdduna waaye duñu jàq ëllëg yamal xiyaam kon ñàkk a jàq fii ci àdduna ak ñàkk a jàq ëllëg yawmal xiyaam kiy jël alalam di ko joxe ci yoonu yàlla te yàlla rekk tax dana ko jural lool wa kadalika suñu borom wax na ba tey ci alquranu karim alladina yunfiquuna amwalahum billayli wannahaar sirran wa alaaniyatan fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxsanuun nee na gaa yi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko financé ci yoonu yàlla billayli wannahaar ci guddi ak bëccëg sirran wa alaaniyatan ci lu nëbb ak lu feeñ am ñoom dañuy joxe guddi du joxe bëccëg amuñu guddi amuñu bëccëg saa soo ñëwee laaj leen di jox dañuy joxe ci lu làq di joxe ci lu feeñ nee na ñooñu ëllëg yamal xiyaam danañ am yool fa suñ borom waaye jihaat ci alalit ak jihaat ci bakkan yooyu yëpp ay xeeti jihaat la waaye jihaat ci alal doon jihaat ju metti yu diis joo xam ne ki ko yàlla man loo mooy nit koo xamante ni yàlla tàggatal na ko ab xolam ku yàlla tàggatal ab xolam ba def ci jikko yu baax kooku mooy mën a jihaat ci alalam looloo tax yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne jaahidul musrikiina bi amwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum ne na ngeen jihaat ak ñiy bokkaale yàlla ci seen alal ci seen alal ci seen mooy lan su fekkee ne ñuy xeex ak noonu yàlla yooyu yoruñu ay jumtukaay yuñ mën a xeexee ñu jël alal financé leen bañ mën a am jumtukaay yuñ jaam jàmmaarloo ak ñoom loolu jihaad la ci alal waaye jihaad ak ñoom ci suñu bakkan jihaad ak ñoom tamit ci suñu làmmiñ yooyu yëpp ay façon jihaad la yom te nii mëneef na koo jihaadee waaye joxe ci yoonu yàlla dana yombal lu jafe dana yombal lu jafe tey siirul asir tey siirul asir nga xam ne ñëpp bëgg nañu nit ku ne day bëgg jafe-jafe yam nekk léeg-léeg suñu borom di ko yombal yomb googu mi ngi amee ci ngay jël sa alal di ko joxe ci yoonu yàlla fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sannu yassiruhu lil yusra ne ka nga xam ne dafa jël alalam joxe ko waaye mu ànd ak ragal yàlla borom bi subhanahu wa mu dëggal ne ëllëg àjjana am na suñ borom dina ko jagleel ñi nga xam ne ñoo doon topp ñoo doon topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem kooku suñ borom nee na deef na ko jàpp ay mbiram def na ko jàpp ndalal ay mbiram waaye def na ko jàpp ba sawaraak yu ni mel mu sori ko ay boobu am na ñuy wax ne mi ngi wàccoon ci sayduna abu bakar radiallahu anhu waaye ñuy xam ne tamit joxe bokk na ci ay njariñam mooy jullit ñi ay xeet lañ bokkuñu am na ñoom te ni seenu njullit dafa mat am ci ñoom te ni seenu njullit daa manqué jullit yi du caagi ne seen darajatul iman ci ngëm ñoo tolloo ñoom ñëpp déedéet am na ci ñoom te nii seen darajatul iman daa kawe lool misaal bi rek mooy Seydina bakar yonte bi alayhi salaatu salaam nee na bu ñu jëloon ak ngëmam teg ko ci balance jël nga ngëmu xeet wi teg ci balance ngëmuk Abubakar nor not ngëmu xeet wi yépp kon lañ cay déggee mooy ginnaaw bu yonte bi alayhi salaatu salaam jàllee mooy akmalul muminina imaanan min ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ngëm tolloowut waaye bokk na ci yaa xam ne suñu borom wax na ci alquranul karim na ñoom seenu ngëm ngëm gu mat sëkk la mooy ñi jël seen alal di ko joxe ci yoon yàlla mooy innamal muminuuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana wa ala rabbihim yatawakkaluun mu tekki na alladina yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiquun nee na gaa yi nga xam ne saa suñ tuddee yàlla jullit yi nga xam ne suñ tuddee yàlla rek seen xol jàq seen xol tiit léeg-léeg ñu tàmbalee di di jooy suñ jàngee alquranul karim mu leen di dolli ak ngëm di wàkkirlu ci yàlla ba ñu wéeru ci keneen ku moom di taxawal mbooleem julli juróom waaye nag ci li leen yàlla wërsëgale ñu koy jël di ko financé ci yoonu yàlla wa mim wax ci lenn ci lenn min gi tab di yàlla ci lenn ci li leen yàlla wërsëgale ñu koy jël di ko financé ci yoonu yàlla lan la ci suñ boroom wax tey mel ne la mu bëgg a wax dëgg-dëgg mooy lii mu ne ulaayika humul muminuuna xaqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa risqun karim suñ borom ne ñooñu daal ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñoom ñooy jullit ya ñooy jullit piir buñ dee xool way gëm ñi piir mooy gaañooñu mooy ñi xam ne ci yàlla la ñuy wàkkiirlu mooy ñi nga xam ne dañuy saxoo julli juróom mooy ñi nga xam ne suñu jàngee alquranul karim mu dolli leen gëm mooy ñi nga xam ne suñ tuddee yàlla ñu tiit jàq seen xol waat ci yàlla borom bi subhanahu wa taala mooy ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko financé ci yàlla nee na sooy wër jullit yi nga xam ne ñoo jullit piir bul génn ñooñu kon loolu day wane joxe am solo gi nga xam ne moom la am am solo waaye tamit ñuy bàyyiloo xel ba tey ne alal alal alali yàlla alal alali yàlla waaye yàlla daf koy dénk ku ko soob ci ay jaamam yàlla daf koy dénk ku ko soob ci ay jaamam kon yàlla moo ko moom yàlla mi ko moom nag bu la ko dénkee rek war nga caa def lu baax moo tax waykat ba labit ibnu rabia waxoon ne wa mal maalu wal ahluuna illa wadaa'iu wala budda yawman an turaddal wadaa'iu nee na alal ak doom yi la yàlla jox nee na nekkul lenn lu dul dénkaane te bis dana ñëw dénkaane yooyu ñu la dénkoon nga delloo ko borom nga delloo ko borom waaye bokk na ci njariñu joxe ci yoonu yàlla ñu xam ne ñi nga xam ne ñooy jël seen alal di ko financé ci yoonu yàlla ñoom ñooy ñi ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla ragal yàlla moom it ay dara darajaat la ñu ñu tolloowuñ ci waaye ñi ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla bokk na ci ñi nga xam ne dañuy jël seen alal di ko joxe ci yoonu yàlla ndax suñu borom bi waxee ci alxuraanul karim alif laam miim dalika alkitaabu laa ba fii hudan lil muttaqin dafa ne dalika alkitaab boobu téere di alquranul karim laa rayba fiihi sikk amu ci ci ne yàlla borom bi subhanahu wa ci moom la bàyyi ko du waxi yonte bi alayhi salaatu salaam waaye dafa nekk hudan lil muttaqin ak njub ñeel ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla waaye bi yàlla waxee loolu daan ak njub la ñeel ñi ragal yàlla bu ca yemoon rek du ñu xam ñi ragal yàlla dëgg-dëgg waaye bi yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiquun mooy gaa yi nga xam ne dañuy gëm xaybu xaybu mooy kumpa lu fàdd àjjana xaybu la waaye teewut dañoo gëm ne àjjana am la ndax gisuñu ko dañ koy dégg rek ci yoon ti bi alayhi salaatu salaam adabul xabri mbugalum bàmmeel ak naimul xabri xéewalu bàmmeel ak sawara yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni ci samiyaat yi lay bokk wala ay yaat dañ koy gëm ñooñu nga xam ne ñooy gëm nag kumpa yooyu nga xam ne gisuñu ko waaye dañ koy dégg rek ci ab yónnente mu wax ko ñu dëggal ko waaye tamit saxoo julli juróom di jël ci lenn ci li leen yàlla borom subhaanahu wa taala di wërsëgale mooy gaa yi ragal yàlla dëgg-dëggi ñu ragal yàlla ñu la te ragal yàlla mooy imtisaal la ittinaab muy jëfe ay ndigal ak bàyyi ay tere jëfe ay ndigal ak bàyyi ay tere sayyidina ali yu karamallahu wajhahu bi mu koy firi dafa wax ne alxawf min aljalil wal amalu bi tanzil war rida bil qalil nee na alxawf min aljalil mooy nga ragal yàlla borom bi subhanahu wataala taala waaye nag war rida bi qalil mooy nga jëfee nga gërëm li la yàlla jox donte ne sax dafa néew waaye nag walla amalu bi tanzil ngay jëfe ci li nga xam ne moom la yàlla wàccee ci alquranul karim mu digale yàlla yi di ko jëfe di bàyyi ay tereem moo tax saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ñoom ñépp ñu nekkoon exemple ci joxe ngir xam njariñ yi nga xam ne moo ci moo ci nekk waaye bokk na ci njariñ yi nga xam ne nekk na ci euh, joxe ci yoonu yàlla mooy ñuy joxe ñooy jaami yàlla yi nga xam ne ñooy rafetal seenug jaam seenug jaam ñooy al muhsinuun suñ boromaa ne euh, bi muy wax naan wa bil asxaari hum yastaghfiruun wa fi amwalihim xaqun lissaa'ili wal mahrum lu ko jiite ne innahum kaanu qabla saalika muxsinin muxsinin ñooñu muy ñooñee di rafetal suñu borom daa wax ne mooy ñi xam ne bu di jotee dañuy taxaw di naafi naafila daanaka duñ nelaw waaye tamit di jégglu yàlla ci jamonoy njël waaye seen alal yooyu ñu xam ne am na ci àq joo xam ne ñii laaj ñoo ko moom ñu leen koy jox ak ñi xam ne dañoo ñàkk te aajewoo kon loolu mat nay bàyyi xel waaye même ñi nga ne ñooy jël seen alal di ko joxeet li nga xam ne moom la ñuy tuddee mujj gu rafet ñeel na leen mujj gu rafet ñoom la ñeel waaye tamit yàlla borom bi subhanahu wa taala day mel ne dana sant seeni jëf mooy li suñu borom di wax ne walladina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan wa yadra'uuna bilxasanati sayyi'a ulaika lahum uqba daar suñ borom nee na gaa yi nga xam ne muñ nañ xeeti muñ yépp nag muñ balaa yi muñ jaamu yàlla yi muñ mooy yàlla yi ba duñ ko def ngir sàkku ngërëmal yàlla borom bi subhaanahu wa taala di taxawal julli juróom waaye tamit di jël seen alal di ko financé ci yoonu yàlla ci lu nëpp ak lu feeñ waaye ku leen def lu bon ñu fayee la lu baax nee na ñooñu kat ba daar ñeel na leen mooy suñ borom dana leen defal mujj gu rafet te mujj gu rafet dara gënu cee kawe mooy mu dugal leen aljana kon yooyu yan la rek ci njariñ yi nga xam ne al infaq am na ko ci yoonu yàlla muy dana barkeel alal waaye dana yokk alal dana tax tamit suñ boroom subhanahu wa fulal la say jaamu yàlla waaye saa soo joxe na nga yëg ne loo joxe lu ne rek yàlla dana watteel lu ko gën waaye ñuy joxeet ñu xam ne ñoom ñooy ñi gën a kawe ngëm ci jullit ñi wala bokk nañ ñi gën a kawe ci ngëm ci jullit ñi waaye ñoo ñu di joxe tamit ñooy ñiy rafetal dëgg dëgg ñiy rafetal ñooy joxekat yi waaye ñi ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla mooy gaa yooyu nga xam ne ñooy jël seen alal di ko joxe ci yoonu yàlla kon njariñ yi bari na bu ñu ci tuddee yooyu rek dana doy sëg moo tax li benn borom xam-xam muy alxasanul basri yi daa waxoon wax jaam solo xol fi jaada bil atiya mooy koo xamante ni am nga yàqin ci ne loo joxe yàlla wu wuutal la lu gën la nga joxe nee na dana tabe ci jël alalam di ko joxe mu doon doonoon ci kenn ci sufiyanke yi nga xam ne sëriñ bi tudd na ko ci tuhfatul mutadarriin waaye dañuy laaj lan mooy al infaq al mamduux mooy joxe bi nga xam ne nag moom la lislaam tagg wala joxe bi nga xam ne moom la lislaam gërëm ndax joxe yi bari na bari na ay xeet bari na ñuy jël seen alal di ko joxe ci yoonu yàlla waaye ndax yàlla gërëm na fañ koy dugal ndax buntu yiw yi bari na waaye buntu yiw yi ak li ñuy baree bari yi ñu tuddee ay awlawiyaat yu yaat daamata bàyyi xel ci mbir mu mën a doon awlawiyaat mooy yi gën a yi gën a yay yi gën a farat ñu jiital ko yencee teg ñu teg ko ca yooyu ñuy joxe war dañ ko bàyyi xel donte sax xëy na léeg-léeg fa ñuy dugal seen alal lu baax la waaye loola am na lu ko gën a yey am na lu ko gën a baax kon jiital la jiitu teg ca la ca tege di wàcc ba ci suuf moo gën nga tàmbalee ci li gën a suufe jëm ca kaw kon kuy joxe loolu war na ko bàyyi xel bu dee al bi nga xam ne moom lañ tagg mooy loo xam ne dafa jëm ci topp yàlla infaq bi ñu tagg mooy loo xam ne ci topp yàlla la jëm lu mel ne tabax ay daara yoo dañ fay jàngee alquranul karim wala tabax ay école yoo xam ne dañ fay jàngee xam-xam wala tabax ay jàkka yoo xam ne dañ fay jullee julli juróom wala sax nga jëmale ko ci sag njaboot sag njaboot alal ji nga xam ne yaa ngi koy jël di leen ko dundalee kooku infaq la waaye infaq la boo xamante ni suñu borom gërëm na ko tàgg na ko sa ñaari waajur même bu fekkee ne suñu borom daa dogal ñu ñàkk te yow nga am kooku infaq la boo xamante ni buñ gërëm la comme yu mel noonu def na jàpp ne mooy infaq bi nga xam ne moom lañ gërëm ak infaq boo xam ni nag da koy jëmee ci gaa yi nga xam ne dañoo ñàkk aajo aaji woo ñu leen dimbale doonu ñu am te ni ñu am kàttan mën a liggéey di laaj te da nga gis comme day am kàttan mën a liggéey di laaj kooku jox ki nga xam ne wér na la kii ku ñàkk la te it aaji woo na te it am na gàllankoor ba mënta liggéey kooku moo gën a farata ngay jox kale am na kàttan xale bu góor la mën naa liggéey tàllal loxoom di laaj kooku léeg-léeg nit def ko jàpp ne def na infaq def na infaq baax na fekk ne am na koo xamante ni mag la moo xamante ni mag mu màggat la dem na ba mënatul liggéey léeg-léeg ay bëtam muuru na léeg yàlla def ci moom mu am benn gàllankoor boo xamante ni mënu koo boole ak di liggéey tàllal loxoom di laaj kooko léeg-léeg war nga ko mën a jox ngir xam ne kiikat gàllankoor bi nekk ci moom amaana bu nuy wutoon ci moom dana góorgóor liggéey kon yooyu mat nay bàyyi xel même defar jàkka tamit baax na tabax ay jàkka lu baax la ndax barab la bu ñuy jullee barab la bu ñuy jaamoo yàlla borom bi subhaanahu wa taala waaye même ki koy defarit war naa dem ci barab boo xamante ni aajo woon na ko mu def ko fa waaye léeg-léeg da ngay gis suñ borom alal yu bëree bëri day mel ne yàlla di leen di natt ci côté boobu ñoom jàpp nañ ne alal balaa mën a jariñ mooy nga defar ci jàkka rek ñaata jàkka nekk ci Touba am na jàkka yoo xamante ni tey boo fa demoon bu ñu julli juróom jotee daanaka imam ba ak kay xaam moo fay nekk yow boo ñëwee yàlla leen ñetteel te ñi koy def dañuy jàpp ne la def lu baax la baax na lool waaye buñ jiitaloon la waroon a jiitu li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne almadaris qabla almasajid mooy jàngukaay yi moo war a jiitu jullikaay yi jàngukaay yi moo war a jiitu jullikaay yi ndax jullikaay yi ñay jàng ñoo fay ne te bu nit ñi jàngut jullikaay yi du fees kenn du fa ne wala sax même bu fekkee ne nit ñi jànguñu jullikaay yi dana am ñi fa ne waaye ña fay newit léeg-léeg su seen julli amoon problème ñu am jafe-jafe kon loolu day mel na ñàkk a bàyyi xel yi nga xam ne mooy ay awlawiyaat mooy jur lu mel noonu kon ñuy bàyyi xel yi nga xam ne moo gën a yey gën a farata ñu jiital ko yeneen yu ñu tey teg ñu teg ko ci am na boromi alal yoo xamante ni wax dëgg yàlla li ñuy def lu baax la mooy fu ñu defar jàkka mook daaray yi alxuraan ñooy ànd wala fu ñu defar jàkka mooy mookub école ñooy ànd nga xam ne école bi ak jàkka ji benn lay doon loo xam ne borom alal yi nga xam ne amaana yàlla def leen a xiirtal ci tabax ay jàkka rek ñoom it war nañoo roy ci lu mel noonu bu fekkee ne mënuñoo ñàkk ba ñu defar jàkk fu ñu defar jàkkaat ñu boole ko ak jàngukaayu alquran wala boole ko ak jàngukaay boo xamante ni dañ fay jàngee xam-xam loolu dana tax dëkk bi mën a am ay jàngukaay yu doy waaye tamit mën a am ay nit ñoo xam ne danañ mën a yanu seen responsabilité bu ñu demee ba toll ci xam lañ war a xam lépp. seeni jaamu yàlla ñu koy defee ci anam ga nga xamee ne anam gu jaar yoon lay doon kon loolu doon na lu mat a bàyyi xel waaye ñu bàyyi xel tamit ne euh, comme que xam nañ fi nga xam ne fi lañ war a def muy infaax bi nga xam ne moom lañ jàppee infaax bi baax kon infaax bi nga xam ne mooy doon safaan bi mooy boo xam ne jëmut ci topp yàlla lu jëm ci mooy yàlla kooku mëneef na ko jàppee infaax waaye baaxut masalan euh, koo xam ne dafa dem ci ab soirée fu ñuy wayee dafa fa dafa defee loo xamante ni dañ fay mooy yàlla nga jël sa alal di baatale di joxe rek di baatale di joxe ñu naan diw sàngam de soirée diw sàngam ba diw de la mu doon joxe ay million la doon joxe wala ay ay junni la doon joxe waaw junni yooye baax na waaye fa nga ko def baaxul baax na waaye fa nga ko def baaxul te yonti bi alayhi salaatu salaam waxoon ne ne inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba yàlla ku teey la du nangu lu dul lu teey alal ja yow amaana na nga ko fàggoo baax na waaye fu nga ko dugal moo baaxul kon ñu bàyyi xel ne dugal fu baax mooy infaax bi nga xam ne moom lañ jàppee infaax bi baax waaye dugal fu bon mooy infaax bi xam ne moom lañ jàppee infaax bu bon te li ci gën a doy waar mooy infaax bi nga xam ne mooy infaax bu baax day doon sadaxa jaariya da nga fiy jóge yi wa di la fekk sa bàmmeel ci tabax jàkk fi ñu toll nii jàkka ji ku ci julli ak lu ñu bari bari bari ñoom seen tiyaaba danañ am tiyaaba waaye yàlla dana ko bindal tiyaaba moom mi ki tabax ab jàngukaay ku fa jàngee moom it yàlla dana ko bindal ci tabax gam ko tabax tiyaaba yi nit ña fay jàngee du nu toll même dafa faatu dem na ay jëfam dogut ndax mi ngi am li ñuy tuddee sadaqa jaariya muy sarax buy daw waaye tamit safaan ba mën naa am ki dem tabax ab baar ñu fay mooy yàlla borom bi subhaanahu wa taala wala ki tabax foo xamante ni doonul barab bu ñuy jaamoo yàlla nu ko wér ne bis bu faatoo ku fu mooy yàlla yàlla dana ko bindal bàkkaar waaye moom mi ko def yàlla tamit dana ko bindal bàkkaar mu nekk ci biir bàkk ci biir bàmmeelam loolu doon lu mat a bàyyi xel ci ñiy def kon ñiy def nañ xam bunt yi ñu war a def ñu def fa ngir mu man leen a jariñ bu ñu faatoo waaye wattani ku bunt ya nga xam ne du bunt yu ñu war a def ngir lor yam leen mën a jural ëllëg yamal xiyam bu ñu faatoo waaye kat wa naktubu ma waa wa athaarahum googu suñu borom wax mooy firneel loolu yàlla ne dana bind lañ jiitaloon ci ay baax baax wa athaarahum mooy lañ bàyyi ginnaaw lañ bàyyi ginnaaw mooy alal ji ñu fi bàyyi benn ñu def ci lu baax wala ñu def ci lu bon loolu ay jeexintal la yu leen di fekk seen biir bàmmeel kon loolu mat nay bàyyi xel waaye même joxe tamit nit ki dafa war a nekk ci diggante bi nga xam ne mooy li ñu tuddee mawxif boo xamante ni mawxiful tawassut mooy diggu doom diggu doom mooy bañ a ëppal ndax ñu xam ne diiney lislaam diiney wasati yàlla lislaam léppam dafa diggu doomu yonent bi ne woon na xayrul mbir yi mbir ya ca gën mooy mbir ya gën a diggu dóomu loolu la sëñ bi doon wax ca Masaalikul Jinaan wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita bul nekk koo xamante ni da ngay yéesal wala ngay ëppal bul yéesal bul ëppal waaye na nga nekk koo xamante ni da ngay nekk ci digg bi na nga na nga diggu doomu diggu doomu lépp ci jaamu yàlla yépp lislaam diggu doomu la ci gën a bëgg diggu doomu la ca santaane moo tax suñu borom subhaanahu wa taala wax ci alquraanul karim walladina isaa anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaana bayna dalika qawaama nee na gaa yi nga xam ne bu ñuy jël seen alal di ko financé ci yoonu yàlla lam yusrifu wa lam yaqturu mooy lam yusrifu mooy duñ ëppal bay yàq waaye walam yaqturu mooy duñ ngottal bay yéesal kon lislaam ni mu bëgg mooy bul ëppal ba yàq ba dugal alal foo xamante nii dugal ga nga ko fay dugal wér na la lii ak yàq la waaye bul ngottal ba joxe loo xamante amaana du jariñ ko nga koy jox looloo lislaam bëgg kon na nga nekk ci diggu doomu bi mooy bul ëppal bul bul yéesal loo tax ibnu abbas day wax ne fii gayri israafin wala taqtiir ci lu dul ngay ëppal wala ngay ngottal ñu laaj ibnu mas'ud loolu lu suñ borom jublu ci tabzir muy yàq mu ne infaaqul maali fii gayri xaqihi mooy nga jël sa alal dugal ko foo xamante ni yeyoowu ko ku ko def ku ne rek yaa ngi yàq te yàlla borom subhanahu wa taala waxoon ne gaa yi yàq mbokki saytaane lañ te saytaane kat dafa nekkoon ci ni ku weddi waa kon ab xéewal te yàlla bëggut ñiy yàq kon yàq lislaam bëggu ko léeg la gis koy joxe waaye day joxe bay yàq joxe bay yàq baaxut yàq tamit baaxut kon nay bañ a joxe baaxut waaye joxe bay yàq tamit baaxut kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax moo tax li ñu tuddee ak tab dëgg dëgg dëgg ci balance yi sariya comme ni nga xam ne la ko ibnu xajar leerlee nee na mooy i'taa'u ma yanbaghi liman yanbaghi mooy joxe li nga xam ne war nañ koo joxe jox ko tamit kañ ko war a jox joxe liñ war a joxe jox ko kañ war a jox loolu mooy dëgg-dëgg ak tab nee na loolu nag aljuud nee na aammu min as-sadaq nee na moo gën a mat sadaq te nee na wa huwa wasatun bayna al israfi wal iqtaar nee dafa digg doomu ci nekk ci diggante yàq ak bañ a yàq muy ngottal wa baynal bas basti wal qabd ak ci diggante tàllalu ak naju mu ne walahu majalatuhu al masrua am na ay domaines yu bëree bëri yoo xamante ni yu ñu yu ñu yoonal la moo tax mu ne walida fa in badala al maala fi geyri mawdiihi qad la yakunu karaman nit su jëlee alalam financé ko ci barab boo xamante ni du barabam loolu kenn du ko jàppee al karam li ñuy tuddee ak tab loolu kenn du ko jàppee ak tab nee na euh, loolu kon moom it lu mat a bàyyi xel la waaye tamit ñu xam ne euh, joxe joxe ba ca gën mooy joxe la gën a teey joxe joxe ba ca gën mooy joxe la gën a teey ci sa alal bul jël la nga xam ne dangaa jàpp ne baaxatut wala mënatoo koo jariñoo nga koy jox nit loolu lislaam xamu ko tey bëgg ko lislaam li mu bëgg mooy booy joxe nga jël la gën a baax ma joxe ko ndax ki ngay jox boo ko joxee lu baax da koo soxla waaye léeg-léeg nit dana jël dara jox ko koo xamante nii lam koy jox su paree du ko jëfandikoo waat da koy sànni wala mu denc ko du ko jariñoo ndax lam ko jox jariñoowu ko moom te moom mi koy joxe wér na ko ni lii may joxe baaxut ki ma koy jox du ko jariñoo kon loolu mën nay bàyyi xel moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyibin wala yaqbalu llaahu illa tayyiba fa inna allaha yaqbaluha bi yaminihi nee na képp koo xamante nii saraxe nga sa alal donte na luy tolloog benn doomu tàndarma la min kasbin tayyib ci loo xam te ni yaa ko fàggu ci anam gu teey daat cey teg ne wala yaqbalu llaahu illa tayyiba yàlla du nangu lu dul lu teey nee na kooku yàlla borom bi subhaanahu wa dana ko nangu defal ko barke ci alal jooju summa yurabbiha li saahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal nee na yàlla borom bi subhaanahu wa taala daf koy gën a yokk gën ko barkeel comme ni nga xamee ne nit ki nga xam ne dafa yor benn faluwu mooy muhru benn mool di ko tàggat di ko tàggat di ko tàggat ba mu ba mu màgg ba duuf nee na tamit nit kiy joxe noonu la yàlla di yokkee àllam muy gën di yokk di gën di yokk comme ni nit ki di tàggatee mool wi mu yor di ko tàggat di ko tàggat muy gën di màgg ba duuf mel na nga xam ne noonu lu ko bëggee loolu kon man nay bàyyi xel ba tey it ñu xam ne suñu borom wax ne lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun nee na du ngeen am li ñu tuyaal bir muy baax te bir dañuy wax nekk kalima la boom te nii day làmboo mbooleem yiw yépp du ngeen am ak mbaax lu du ne da ngeen a financé la nga xam ne moom ngeen bëgg lu ngeen bëgg ngeen financé ku ngeen joxe ko neen du ngeen am ak mbaax lu du ne def ngeen loolu su ko defee nag xam naa li des ci waxtu yu bareetut dañuy ñëw nag ci tomb bi mujj muy dawrul dina fil infaq muy rôle bi nga xam ne moo war murid yi ci infaq mu jël seen alal di ko dugal ci yoonu yàlla loolu ñuy bàyyi xel ne sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu sëñ Tuubaa radiyallahu anhu ci wàllum joxe moom da cee nekkoon kiimtaan ci wàllum joxe moom kiimtaan la ci woon rawatina ñaari weer yi muy weer wii ñu nekk di weeru koor ak weeru gàmm ñaari weer yi mag ñi jamonoonteeg sëriñ bi wax nañ ne su ma saana ñëw sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu ak tabam day gën di yokk lu mu daan joxe lu ne da koy yokk bu daan joxe masalan junni day joxe ñaari junni ngir xam wàccuwaayu ñaari weer yooyu fa suñ borom subhaanahu wa taala ak gaa yu baax moo tax sëriñ Basiiru mu ngi wax ci minan di wax ne wa amma basluhu fa tastawi fihi l ayaamu wa suhuur nee na sëriñ bi ak tabam nee na mbooleem ayaam yi bis yépp ak weer yépp ñoo ci yemoo lañ ca déggee mooy kon Sëriñ Tuubaa bis yeeg bis yépp la daan joxe waaye weer yépp la daan joxe amul ay bis yu mu daan joxe di bàyyi yeneeni bis waaye weer yi tamit xëy na ñaari weer yi da cee gën a fees mu gën cee ràññiku ci joxe waaye teewutit yeneen weer yépp da ci daan joxe moo tax mu wax ne wa fii haasa shahri su ramadan yuqaddimu al infaq wa anwaa al birri ala gayrihi nee weeru koor su ñëwee jaamu yàlla yépp nee na sëriñ bi day mel ne joxe lay gën a jiital ci yeneen yi ci des joxe lay gën a jiital ci yeneen yi ci gën a des loolu mooy lan dafa xam yu weeru koor xam ne weer la woo xam ne loo ci def ci lu baax yàlla daf lu koy fulal waaye loo ci def ci ab safaan suñ boromit daf la koy fulal moo tax kon dañ ciy ful ay baax baax loo ci def ci lu baax doyut waaye tamit daan na dénk taalibe yi ñuy jël seen alal di ko financé ci yoonu yàlla ci waxtu yépp comme bu ñu demee ci masaalikul jinaan bunt boobu nga xam ne daf koo jagleel joxe ci yoonu yàlla ak saraxe ak jokk mbokk te am na lu ñu ci jotoon a ci ginnaaw danga gis li ci sëñ bi wax wane na kon joxe doon na lu ko yitteel lool. ci biir ay waxamit lu mel noonu da ciy feeñ am na xasidaam goo xamante ni mi ngi ko tënkee hada hakada minhu kadamtu anfaqtu kama afawtu qablu mujahidan wa ma fawtu nee na nëbb naa sama mer nee na dundale naa sama alal ci yoonu yàlla waaye ne na jéggale naa ñi ma baaloon comme ni nga xamee ne noonu laa jihaatoon lu jiitu loolu waaye tamit wa maa jëfawtu bécc ngeeluma kenn mooy ñaawalu ma jëme ci kenn moo tax naaru gànnaar ba seex siriya baaba ba mu koy tàgg daa ko waxoon ne ida maxtawat yowman qanaatira kafuhu tuqassimuha alaafuuna waqta xtiwaihi yuaddu namaau lmaali ayna fanaihi wa infaaquhu lillahi ayna namaihi nee na bis bu ay loxoom jotee ci xanaatirul maal alal ju bëree bëri moom suñ Tuubaa nee na daf koy séddale ñi nga xam ne ñooy alaafun mooy ñiy ñëw di sàkk lu ñu am ci jamono ji nga xamee ne làq na ko nee na moom daa jàppe woon joxe ci boppam mooy aynu nama il maal jëmmi dëgg-dëgg liy tax alal mën a yokk sëñ bi moom joxe la ko jàppe woon waaye jàppewutoon joxe muy loo xamante ni aynu fanaa ihi mooy lam te day tax nit ki di jeexal nee ne jàpp doon ne moom booy joxe da ngay jeexal waaye daa jàpp ne moom loo gën di joxe rek saalal di gën di yokk di gën di bëri moo tax beneen waykat di muhammad abdullahi ibnu fafa al alawi dafa wax ne tafarraqatil awlaadu minka dadar madar banaanuka laa tubqi wala tadar fa lillahi ma kafathu kafuka bilata min armalatin unsa wa min armalin zakar nee na moom sëriñ bi radiyallahu anhu yéem na li muy joxe yéem na li nga xam ne tënkam ba dana ko joxe ci ñoo xamante ni ay armala la ñoom te dañoo ñàkk ay boroomi kër ña góor ak ña jigéen ñépp lay jox waaye may wax ne walillaahi maa afnat banaatuka juudatan min alxayli wal abaali wal ayni wal baqar nee na maa ngi yéem sëriñ bi li nga xam ne ay loxoom jeexal na ko ci ay fas yoom da ko doon tabe di ko joxe ak ay abal ay giléem yoom da doon tabe di ko joxe ak keeng muy alal ak li ñu tuddee ay bàqar ay xeeti nag kon day wane sëñ Tuubaa joxe kat la woon beneen waykat daal ne wax yuqassimu min baynil aramili maalahu fala taarifan yubqi walam yubqi taalida ala baabihi lil mujtadina tasaaxumun tasaaxuma fiihi fiihi siibu wa waa wala fa kam qaaidin minhum yusaahimu qaaiman wa kam qaaiman minhum yusaahimu qaaida nee na sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu day jël alalam di ko séddale ñi nga xam ne ñooy ay araamil ñi ñàkk ay boroomi kër waaye alal ji nga xam ne moom la yoroon da koy joxe ba mu jeex tàkk du denc dara waaye nee na ci buntu këram moom sëriñ bi lañuy fekk ñoo xamante ni dañ fay raj-rajloo raj ngir sàkk lu ñu am muy ay waxambaane ak ñoo xamante ni duñ ay waxambaane nga ne këram daa mu jot mel ne ab marché ñëpp di dem ci moom ngir am luñ sàkku loolu Seex Ibrahima ma Masari wax na ko tara naasa afwaajan ila baabihi ka màkkata yowmal ak bari lil amal nee na da gis nit ñi ñuy def ay délégation di jëm ci buntu kër Serigne Touba mel ne ñu jëm ci ab marché wala sax ka yowmal xajjil akbar lil amal mel ne bisub aj yowmal xajjil akbar mooy bisu arafa nit ñi di bëree nee day mel ne nit ñi noonu lañuy ñuy bëree ci buntu kër sëñ Tuubaa ngir sàkk lu ñu am waykat yu bëree bëri ci waykati naari gànnaar yi tàgg nañ ko ci wane tabuk sëriñ bi loolu kon day wane ne moom sëñ Tuubaa exemple la woon ci tab waaye euh, ñeneen ñi xam ne ñoo ñëw ginnaawam tamit def ci mën a jël ñenn rek ngir njëkkante ak waxtu wi loolu Cheikh Mamadou Basir junñu na ko ci minanul baaxil xadim wax ne xam naa ci ñaar ñooñu muy sëñ Adama Gueye ak sëñ Ibrahima Fall ñaar ñi nga xam ne bokk nañ ci murid yi njëkk a jaayante ak sëriñ Touba leen yàlla tijjil ci àdduna ci wërsëg ak koom xam ne ngëneel la lu bàyyi ko ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala waaye doonutoon ñoom loom dañ koy sàkku ci moom laa talaban minhum dan ne wa bi dalika wafaqul qiyaama bi sukurihi wafaqul qiyaama bi sukurihi taala min al infaaqi wa amalil birri wa saxaa wa islaahi saatil bayni wa hadaaya lissaalihiin nee na loolu moo waral yàlla borom bi subhaana wa dëppale leen ak ñu taxaw ci sant yàlla borom bi subhaana wa di ko sant nag ci jël seen alal di ko financé ci yoonu yàlla ak doon ñoom ñu tawe lañ woon ak di dox ci yéwénal diggante yu yàqu ak di jël seen alal di ko jox gaa yu baax yi nee na loolu leen yàlla dëppaleel day mel ni sax dëppalewut ak lu mel noonu ñu jiitu woon ci saxaaba ya ginnaaw saxaaba yi day mel ne ñoom ak taabiuna yi li mu leen dëppale ci anam googu dëppale wu ko keneen ku dul ñoom kon loolu doon lu mat a bàyyi xel bu dee murit yi daanaka mën nañoo wax ne ak tab exemple yi bari na ci lool Cheikh Mouhamadoul Moustapha boo ko jëloon rek ku tabale woon sëriñ soin bu boo ko jëloon ku tabele woon sëriñ soin bu ak tabam ak joxeem ak nëbb gi mu ko daan nëbb waa nañ ne sax léeg-léeg ñi daan yebal guddi lañuy dem suñ demee jëllu ko ca kër ga nga xam ne ki ñu koy jox day xëy rek fekk ko fa ngir ak tabam waaye ak bëgg suturaan lu mel noonu doon dinañ ko wax ci Cheikh Mamadou Moustapha ngir nëbbu la ñuy joxe bañ ngir sal dugg ca wala lu yàq jëf moo tax ñoom bu ñu daan joxe léeg-léeg dinañ jox nit te kenn du ko xam loolu doon lu am solo loo xam ne ñiy joxe war nañ ko bàyyi xel joxe ci lu nëbbu moo ëpp solo joxe ci lu feeñ lu dul ne nag su fekkee ne xëy na feeñ gi danga caa jublu am na ku den nag yow borom alal la waaye yàlla dogal na moom dafa nayee joxe alalam ngay joxe ngir mu gis ko royee ci yow loolu baax na waaye su fekkee ne da nga koy def di ko feeñal ngir jublu xëy na nit ñi ne kii daa tabe wala kii daa baax wala yu ni mën na laa dugal ci ngistal te bu la dugalee ci ngistal rek la nga doon def ci lu baax lépp yàqu la kon loolu mat nay bu baax a baax moom exemple la ci la ci woon waaye day mel ne moom daa dégg la ko sëriñ saalihu mbàkke mu seex mamadou moustapha denkoon ba muy dem di jàngi da ko waxoon wa kun baadilal maali inniltahu falaa yanaalul ula man kafuhu yusbihul xajar muy wax ju am solo saa soo amee alal koy joxe wa kun baadilal maal inniltahu daldi cay teg ne falaa yanaalul ula man kafuhu yusbihul xajar nee na ki nga xam ne loxoom dafa mel ne aw doj loolu tasbih bu am bu am solo la wane doj fa mu nekk dafay dëgër daanaka dindi ko fa du yomb waaye nit ki am loxoom daa dëgër ba daanaka jël loxoom dugal ci poosam génnee ko moom day dëgër lool nee na kooku du am li ñu tuddee walla mooy du am ak kawe mukk kon day mel ne dénk déggoon na dëgg-dëggi dénkaane boobu nga xam ne moom la ko sëriñ bi dénkoon ba tax da daan joxe ba wane ne sax léeg-léeg da daan joxe ba dépasse sax da koy leb nit daan na ñëw jox ko alal ju bëree bëree bëri keneen ñëw nuyu ko koo xam ne wér ni ko ni kii day sàkk du jéem a tijji sax xol la ca ne mu jël ko jox ko ko kon loolu lu am solo la lu mat a bàyyi xel maam Seex Anta moom it gis nañ ko ci wàllum joxe yu bëree bari ci yaa xam ne moom lañ njëkk a def ci yoonu murid yi ci bëri ci moom lañ koy delloo mool téere Sëriñ Tuubaa yi taxaw ci taxawaay bu am solo ci jamono ji nga xam ne jafe woon na lool waaye tamit ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci des sëñ Saalihu ak sëñ Abdou Xaadir ak sëñ Abdou Laat koo ci jëloon moom dañ ciy mën a indi ay exemple yu am solo yu wane nii ñii ñu tabe lañ woon ñu daan joxe lañ kon lañ cay déggee mooy morit warut toog di xaar waaye morit day joxe sëñ Saalihu da daan wax lu am solo loo xam ne mat naa bàyyi xel mooy joxe bi dafay jiitu laaj bi wax ju am solo ji mat a bàyyi xel joxe bi dafay jiitu laaj bi mooy lan mooy moom day jël di joxe di def ci procès yi ba pare nag doog a laaj taalibe yi ñu ànd ak moom liggéey fi ñu koy daaneelee di ko fi tëjee mooy jamono jii ñu toll nag ñun murid yi infaq war nañ koo gën a dundalaat bu baax a baax rawanti nag procès bi nga xam ne moom la alxalifa al am Cheikh Mamadil Muntaqa ame muy procès bu am solo procès xam-xam procès xam-xam boo xam ne sëriñ bi junjoon na ko sëñ Mbàkke bu sa wax na ko ci ay mbindam wane ne suñ tubaab bi mu fi bàyyi koo ñett la fi bàyyi woon ñetti mébét rek la fi bàyyi woon ci àdduna mooy aj màkk ak jumaay Tuubaa ak jàngukaay boo xamante ni jàngukaay bu mag lay doon nit ñi dañuy laxas di ñëw di fi jàng see bu dee jumaa ji sotti na bu dee aj màkka ga ba mu fi jógee 1928 sëñ Fallou ak sëñ Mbàkke sax ak maam Cheikh Anta ak ñañ àndaloon defal nañ ko ko na nga xamee noonu la ko bëggee woon waaye nag procès bii ba léegi moo sottiwutoon wutoon Cheikh Mountakha bi mu ñëwee na moom mooy procès bi nga xam ne moom la gën a yitteel moom la teg ci kanamam di procès xam-xam waaye damay wax ne procès xam-xam la waaye murid yi lii suñ jafe-jafe ñun murid yi day mel na def ci xam-xam lu ñu jafe la def ci xam-xam lu ñu jafe la am na kilifa gu ma masoon a toog ñuy waxtaan mu ne daal suñ kilifa yi ñu ci bëree bari ak suñ borom alal yi jàpp nañ ne moom som bu bëree bëri fer ak ciment ak yu ni mel rek lañ ko war a jëndee tabax ay jàkka tabax ay kër yu rafet rek lañ ci war a def waaye ay daara ay jàngukaay jàngukaayu alquran ak téere Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne borom xam-xam yi ñu ngi koy bind di ci liggéey liggéey yu am solo ñu war leen a jàppale mool ko mu tasaaroo ñu xam sëriñ bi xam njàngaleem sëriñ bi bu baax a baax ñëpp man koo jariñoo looloot lu am solo lu mat a bàyyi xel kon projet Sëriñ Muntaxaa bi aaje na ñu jël suñ alal financé ko ci ba mu sotti buñ toog di xaar naan sëñ bi mën na ko déedéet sëñ bi mën na ko waaye ñun it nañ ci def liñ man ñaam xam-xam ci def liñ man ci seen xam ñaam alal nañ ci def liñ man ci seen alal ndax kat nañ daan joxe ci jumaa ji tamit nañ bàyyi xel ne ak ni ñuy joxee ci procès bi ñooyam rek jumaa ji ak lii ñooyam digalu suñ Tuubaa la ndax ci xalifab sëriñ bi la bàyyi ko te nag sëñ bi daa wax laa tafalu sayan bi gayri isni fal isnu sartun fii qabulu shani te lii am nañ ci ndigal sëñ bi moo ci joxe ndigal kon nañ ci def ñoo ngi jéglu bu baax a baax lu ci leer yàlla lu ci dënga doomu aadama ak matadeem di sant mbokk yi bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waxtaan nag ñaare bu fekkee ne li ngay indi dafa am solo dina la tënk-tënk ba sax lu ci bari na ca war a yaatale doo doon yaatale waaye nag lii nga xam ne jën ko fee wax ci wàllu infaq bi lu am am solo lool sëñ Mbàkke ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la tawfiq te yokk xam-xam bi bu baax a baax te gën laa dimbal ci dimbale ci liggéeyal bi ngay liggéeyal sëriñ bi ndax eh, lii ngay wax dëgg la eh, bala maa ñëw sax ci li nga doon wax mooy li nga daanelee tom bi nga daanelee tom boobu dafa am solo lool mooy daara ji sëriñ Muntaxa sumb jamono ji nga xam ne ci wàllu xam-xam la jëm waaye moom ni mu ko bëggee liggéey boo xam ne dana dem ba am lu tolloog ñetti téeméeri at ca dara du ci sikk yaakaar naa ne loolu du liggéey bu ndaw te itam bëgg na mu nekk liggéey boo xam ne mbooleem àdduna bi lu ñu fi soxla ci wàllu xam-xam ñun ñi di ko mën a amee fii ci Touba au lieu que ñuy génn dem ci biti di ko jànge parce que soppiku gi li ci ëpp li ko waral mooy environnement bi nit kiy dem di sàkku ji xam-xam fa mu dem nañu mel rek lu ci bëree bëri loolu lay indaa indaale léegi nag pour loolu ñu mën ko dindi ñu mën ko éviter ci biir sunu société bi faw rek ñu mën a am jàngukaay boo xam ne dootu ñu déggaat déggaani beneen xam-xam boo xam ne mën naa wëlbati xale yi sëñ taxaa ci nekkuk sëriñ euh, Sidi Mokhtar yàlla na ko yàlla dolli yërmande ci ak nekk nekkam rek sëñ taxaa koo gis ni muy faral di maanaam bantoo bayit wi bin Mustafa lii banal qudduusu madrasatan biha yasuulul asa wal jahlu wal kabadu ku gis ni mu doon baamtoo bayit ci nga xamee ne kon am na lu des ci liggéeyu sëriñ bi ca loolee bëgg na koo bëgg na mu àgg bëgg na ko àggale muy la am solo lool waaye xam naa comme waxtu yi dañoo xaw a euh, dafa dafa jege lool euh, liñ dënk rek ci lu ndaw ci li nga xam ne suñ suñ mbàkkee ni nga ko buñ xoolee ci li nga njëkkee mooy doomu aadama alal sax gi mu sax ci xolam moo koy gàllankoor ba lam war a jaamoo yàlla ci infaaq du ko def euh, te loolu yontu saa salaam waxoon na ne doomu aadama law kaana libni aadama waadiyaani min zahabin labtaxa ilayhima saalisan mu ne nit bu amoon ñaari xuru or su ko amoon dana sakku bu ko ñetteel daane waat nit ki su amoon ñetti xuri or dana sàkk bu ko ñeenteel daane kon doomu aadama daal ndekete li mën a suur biiram dëgg-dëgg moom mooy li ñu tuddee suuf suuf donc moo ko day waa leen duy ko euh, te alal yàllaa ko moom kon ni ko waxee woon léegi wa mal maalu wal ahluuna illa wadaihun fala budda yawman an turaddal wadaihum waaye bokk na ci li nga wax ne bokk na ci xeetu infaaq yi lu mel ne alhadiya hadiya bokk na ci li nga xam ne ci lislaam li ma taxawal procès yu mag yi nga xam ne lislaam moo ko moom tey su ma joxe misaal rek ci murid gi lu mel ne jumaay Tuubaa ji amul benn procès bu bu ko ëpp li ko taxawal mooy addiya waaye si mbàkk am na benn ponk boo xam ne am solo la mooy azakaat mooy asaka gis nga asaka mooy li nga xam ne sax yàlla waxul ne na nga ko jëlee nga joxe ko waaye dane na ngeen ko jëli xus min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tusakkihim biha na nga ko na ko jël mooy loo xam ne kon dañ koo war a dépasser ci yoonu alal ci yoonu yàlla na mu ware waxaar nga itam ne euh, dépasse bi nga xam ne saxaaba yi doon nañu ko def ci biir lislaam tudd nga ci Seydina Ousmane tudd na ci Seydina Omar tudd na tudd na ci Seydina Abubakar yaakaar naa du jar ñu ci delluwaat ba tudd Sëriñ Tuubaa radiyallahu ni mu waxee woon na fa atlaful amwaale bil infaaqi mooy ñoo xam ne seen ala daal ci liñ koy def moom mooy euh, dépasse ci yoon yàlla lañ koy def waaye duñ ko def leneen waaye saxaaba yi nag lu tax ñu mënoon loolu mooy li mu waxoon ci nax ne kaanu ila al oxra sawintilaaxi iswaajahu darrata bi talaaxi mooy koo xam ne li mu yor ci àdduna la nekk fa yàlla moo ko gënal fopp wa ma indallaah xayrun wa abqa kon wax na itam ne jëmmi infaaq dafa yombal mbir yi comme ni ko alxuraan di waxee loolu moom mbir na ci alxuraan waxaane tamit ne infaq am na solo waaye am na infaq yoo xam ne maam doox la yuñ tagg waaye am na yoo xam ne amul solo baaxul lu mel ne nit ki infaq bi gën a am solo mooy taxawal ay daara taxawal ay jàngukaay taxawal ay dispensaire fu nit ñi mën a fajo ay hôpital ak mbooleem loo xam ne rek nit ñi dana yëwaleel seen dund nit ki mën na koo def jublu ci jaamu yàlla ba noppi sax am ci àdduna loolu mooy dëgg-dëgg infaaq waaye infaaq du li nga jël rek di ko sànni ci àll bi di baatare comme ni nga koy waxee noonu ci nit ñoo xam ne yow mi leen di jox sax ñoom ñoo la ëppale loolu gis nañ ko loolu du infaaq fi sabilillah loolu yàq la gën a jege euh, ci alquran euh, tere na li nga xam mooy yàq wax na itam ne dafa mujj bi infaaq baax na lool waaye bul ëppal ci li ngay infaaq loolu mooy euh, alquran di wax naan wala tajal yadaka maxlulatan ila xunuqika waaye wala tabsutha dal basti waaw maanaam li nga joxe na ko joxe waaye bu ko joxe ca na xam ne noonu la noonu la noonu noonu noonu la ëppee daal maanaam nanga nga sa loxo mooy saraxe tey yelwaani suba loolu moom am mu jeexalee ko nag ci sëñ euh, dawrul muridin ci ñi nga xam ne ñoom ñooy rôle bi murid yi am nag ci infaq fi sabilillah fii moom li fi taxaw rek infaq moo ko taxawal ak hadiya ci infaq lañ ko dugal di commencé ci raay bi ñu ñëw suñu mën saa taxawee ak taalibe yi gis ngeen ko infaq ci alal waaye ci doole lépp def nañ ko ci infaq ci seen alal waaye ci seen Euh, doole bi yoon wi commencé rek ci lañ commencé loolu raay bi gis nga fañ ko jëlee njaareem ay murit taxawu ci jox ci def ci yitte te mat sëkk ba gis ngeen fa mu mujj sëñ mënu saa jóge fii sëñ fàllu àggale loole murit yi fii bi ñuy tabax jumaa ji rek fañ daan jëlee xeer nam daan sori sori dañ ko daan yandi du ko indi yooyu yëpp infaq la waaye ci comme ni nga ko waxee jihaad ci sa doole dañ koon defee waaye alal ji maanaam ba mu ko soxlaa desul ginnaaw bi Cheikh di soxla fii un milliard yaakaar naa ne boobe xaalis jafe woon na lool ca dajale wuñ ko ci lu tolloog sax weer mu mat sëkk kon lu taxaw ci yoonu infaaq moo ko taxawal kon infaaq boobu dafa war di continuer parce que mooy tax li ñu bëgg taxawal ci diine ñu taxawal ko parce que Seydina Omar Seydina Abubakar bu ñu seetaanoon yoon sallam ci ànd ak moom noonu rek ci xeex yu mel noonu yaakaar naa ne comme li ñu def ci lislaam duñ ko ma def waaye seen alal lañ ca dugal kon infaaq amul fu mu yem yaakaar naa kon euh, buñ ci doon yaatal dana gën a yaatu mu jeexalee ko itam ci seexi sëriñ Tuubaa yi ñoom it dañ tabee woon dégg nga si Musaa Ka li wax naan euh, nappeek goreek tàllal loxo ndajoor la moomee Saalum ak Kajoor waaw xam naa ne kon euh, mooy li tënkoon rek wax wax ji loolu rek mën na koo tënk yaakaar naa ne mooy li waykat bi wax naan moasun mulaasun li sawaarihi wala jaara akrama min jaarihi ka anna alxatima ala baabihi wa samzama wal bayta fi daarihi mu ne maas daal soo ko gisee dafa mel ne daal eh, ak ndawal moo nekk ci bund këram moo tax nit ñi di rek di ñëw ci moom waaw daan ne sax dafa mel ne sax ci biir këram ba fa àggee da ko fekk eh, sam-sam ak li nga xam mooy kaaba ga eh, kon yaakaar na infaq fi sabilillah loolu mooy jeexatalam kon njëkk laa ñu njëkkalante waxtu yaakaar naa li des bëreetut jërëjëf sëñ kàddu yi rafet na lool te am solo macha allah euh, li nga wax mu ne sutaat ak leneen am na solo lool macha allah waaye di rafetlu lool waxtaanu euh, sëñ Abdul di wax rafet loolu waxtaanu sëñ Mbàkke waxtaan am na solo lool rawatina fi mu ko jëmale muy wàllu infaq ci biir waxam dégg naa ci ñaar yoo xam ne faw ñu jaar ci ci biir waxam day wax ne àdduna bi kat la woykat ba wax ne euh, lu fi waay yor rek da nga koo ab bu yegg yegg da nga koy delloosi kon loolu war naa tax ba lépp lu ñu yor ñu war koo mën a jëmale ci ki nga xam ne moo ñu ko dénkoon waaye woykat bi dafa am lu njëkk wax ne wamal amru illa ka shihaabi wa dawuhu yasiru ramadan baada isxuwa saatiu di sottee teg ne wa mal maalu wal a'luuna illaa wadiatun fala budda min yawmin turaddul wadaa comme li nga xam ne moomoo ko suñu borom rekk la ko dénk te tànn na sa téeméeri morom dénk la ko ngal la waaye war nga caa mën a góorgóorlu ba def ci lu ndaw loo xam ne day jëm suñu borom ñu tëju ko rek waxee eh, sul xeer nañ ni ba nga xamee ne jox na ay fuqaraawu am ca ku koy xalab ci biir xalab ya mu mel ne ci ñem àndaloon naqari woo da leen lool ñu laaj ko ne noo ko gisee mu ne ko amu ci benn gis-gis bu de ma ajmalu an tuta wa anta taalam anna al muqabal laysa min an naasi bal min rabbi naas kon daal du jar ma koy wax dara ndax daal li may def ngir yàlla rek a tax kon ñooñu fañ eggoon ci infaq yaakaar naa waras nay delluwaat ci ñoom bu baax baax di leen bàyyi xel ndax am gu mu amoon solo ndax ñoom kat ñoom macha allah foofu rek lañ nekkoon waaye li ñu tax ñëw rek mooy kàddu goo ne kàddu waa académie bi yëpp la di sant rek ak a gërëm suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñu ci jàppale ba ñu yegsi fi ñu yegsi kilifa yooyu buñ ci tuddee Serigne Cheikh mi jiite kër gi Serigne Abdou Lahad Serigne Mbaara waaw Mbaara mu Serigne Modou Fati Xare Serigne Saalih imaam macha allah seen taxawaay rafet na waaye sëñ maam Fallou nga xam ne moom it dëkk bi mu yëf yi commencé ba tey jii bàyyiwuñu wenn yoon mi ngi joxe xalaat teewal fi magam yii yëpp teewaay bu rafet nga xam ne daanaka matale na lépp dal ci loo xam ne manqué woon na rek lépp matale na ko ci ay xalaat ci ay euh, dégg nga maam jumtukaay ak loo xalaat loo xam ne rek ci lu rafet loo xam ne day tax yëf yi gën a jëm kanam rek mu ngi ciy jàppale fikriyan wa ilmiyan yàlla na leen seen ma seen baay bu baax ba taxaw ak seen maam barke Cheikhul Khadim ñun ànd koog ñun ay at yu bëree bëri waaye mënuñoo ñàkk a sant seriñ Modou Mbakke moom sëñ Bachir bu sëñ Modou Faty Khary di sant bu baax sëriñ Xaadim moom sëriñ di sant bu baax sëriñ Modou Mbakke moom sëriñ Cheikh waaye ak daayira waa kër sëñ Modou Faty Khary yi mooy ñu mel na ñoom ustaas ndaw ñi nga xam ne ba yëf yi commencé ba tey ñooy nekk di organiser ka waajal ak def lépp ñu ngi leen di beraloog sant ak nag daayira ahfaadu sëñ Modou Faty Khary bi yëpp waaye faaw ñu sant tamit sëriñ naa mii ci déplacement yeeg ci jàppandal gi nga xam ne waxtu bu ñu ko soxlaa rek day daal di bàyyi léppam nekk ci yëf yi ba tey jii ñu war a mottali yëf yi moom daal kaddu cant la woon rek boo xam ne mënuñu ko ñàkk sant suñu mbokk yooyu ni ko doon di sant euh, média bi nga xam ne ñoo ci jàpp yenn yëf yi bi mu commencé ba tey jii nii média boobu ñu ngi ciy jiital sunu active bi nga xam ne moom moo koy moo moo koy jàllale ak euh, Daaru Karim TV ak yëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax xanaa di jeexale rek ne li nga xam ne moo ñu tax jóg mooy ndaje mi ci njiital sëriñ Xaadim suñu rakk euh, di sant ñi nga xam ne li ñu tax moo ñu tax rek mooy mu yegg fépp foo xam ne ña ngi fay defee lu baax ci bërëb yu mel nii wala mu yegg sax fu ko foofa euh, ay nit ñu néew rek waaye ñu am pasteef bëgg a liggéeyal seen maam rek di ci woo nag mboolem koo xam ne rek lu baax moo la tax a jug te nga aju ci kër gi ak foo man a aju moo xam ci kër gi nga bokk wala bokkoo ci waaye lu baax rek moo la tax a jug na nga xam ne daal yaa ngi ci biir jataay bi yaa ngi ànd ak ñun boo ko yegee boo koy ko yëpp boole nañu ci suñu biir li sant nag bu baax a baax sëñ Abdou Lahad mi moom tamit ci teewaayam ba eh, xanaa kàddu yi sant moom mënut a mënoo sant daal ba dajal surtout ko lim da ngay xanaa li ñuy def rek mooy jox uh, Serigne Saalix mu teg jataay bi ndax xëy na dañoo xawoon a am tuuti tardement moo waral mu demee nii waaye daal sant nañ mboolem ku ci jàpp ci xalaat ci jëf ak ci noo ci jàppee ñu ngi lay sant di la gërëm waaxir daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah aousubillahi min seytaan rajim bismillahi rahmaan rahim wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baxda ñu ngi nuyu mbokk julli yëpp mbokk taalibe yi jàkkaarloo ñun di tàmbali nuyoo bi ci sun kilifa yi fi toog muy sëñ Baara ak sëñ Saaliw mi di wax ci turu académie Daaru Karim ak ci njabootu suñ Modu Fatick ak yëpp muy dugal loo xam sëñ Saaliw di ko ñu euh, jàpp ci yëpp te académie Daaru Karim def ko bi moo ko coordonné mu lépp ànd ko suñu seen mbokk ñoom dara ñoom ñëpp ak bi xarit def ko ni rafet ba yëpp ni ko bëggee ni ko bëggee ngi sant ñëpp di sant bi waa dëkk bi yàlla ñoom it def lépp am nañ ko ñun ci defin ko defin ko gën a rafet wax dëgg yàlla ba yi ñu ko bëgg woon def yëpp def nañ ko. képp koo xam ne nag participé na ci ci ànd ceeg ñoom wala ànd ceeg ñun ba def ko ni nga ko bëgg a def ñu ngi lay sant di la gërëm taxawaay bi ak comité organisation bi nga xam ne maam Mor Ndaw mi moo ko jiite ci wàllum ndogu yëpp ñu ngi leen di sant di sant ñëpp képp koo xam ne jàpp na ci saay ak sunu magi taalibe bi yi nga xam ne boobu ba tey bis bu ne ñuy ñëw ànd ak ñun ànd kook ñun ba ñu yeewee ak magi jàkka ji ak waa dëkk bi ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla sunu borom defal ñu. waxtaay lépp loo xam ne jublu nañ ko ci yàlla nañ ci am nañ ko seen jot yàlla nañu yàlla defet ñu gën a dégg wax ji ba ci gën a rafet tañ mën koo jëfe yàlla nañu yàlla may ñu fekk wax déwén ak jàmm wax ko seen man la ba sibaay wa dum alayhi fi lmasaari wa sabaa